Mohamed li tax ma fonk la moy xamne ku bëgg président Macky Sall nga ku engagé nga li tax ma fonk la moy bir na ma da ngay liggéey pour élargir les bases de la coalition Benno yaaka ah way motax moi je n'ai pas de frontière amul fuñu may rendal ne fi lay yem wala duma fa yem président Macky Sall ñu fal ko mu jël mairie bi mu yoron jox ko jox ko jël jël ci man képp kuy liggéey da taxaw sa wet encouragé la pour que liggéey liggéey mëna jëm kanam yow nak lima nek nga wax lool rek lay jàpp li maye doole te président Macky Sall wara jall premier tour mooy ku nekk liggéey ci fulla ak fayda te xëccoo bi jeex parce que ku nekk war naa wut doole boppam waaye bu desul dara pour ñu fal président Macky Sall dañu war a boole doole yi te bañ a naxante ay carte moo ñuy fal donc ay nit ñoo ñuy fal te sur le terrain mooy tax nit ñi yokku mooy tax nit ñi pare pour voter yow nag yaa ngi terrain bi tous les week-ends tous les jours président Macky Sall xam nga ne ku am ci yow considération la ku am ci yow estime la te xam na ne yaa ngi liggéey le bassin arachidier que ça soit Fatick que ça soit Kaolack que ça soit Kaffrine dañu war a góorgóorlu ba nga xamante ne kenn duñu jiitu ci falaat le président Macky Sall yow nag bu ñëpp defee ni yow dana yomb man ku xam xam ne. jàppale président Macky Sall nekkuma ci leneen moo tax Guinguinéo laa jóge meeting tey ci suba maa ngi woon ci randonnée PDS à Dakar mais dama la ne nu mu mënti guddi guddi dinaa ñëw fii fekke la la sa bés bi sant la gërëm la encouragé la ak ñi nga àndal monsieur Sow yow tamit ñu ngi lay sant di la gërëm ci accompagnement bi nga andi pour jàppale la jeunesse de Kaolack surtout la jeunesse. sëriñ si nek ci kaolak wa Medina Baye ak yenen kilifa diine yi fi nekk gis nañ sen taxawaay japp len ci kurus Mamadou Ndiaye ci terrain bi xalé yi ci terrain bi jigen yi ci terrain bi et au soir du 19 février ou bien xaw ma kañ lay doon ñu jall premier tour defé na né loolu lu am la je fais le tour du Sénégal mais je vois que la population du Sénégal est très engagée à réélire le président Macky Sall au premier tour bravo maa ngi lay sant di la gërëm di sant say mbokk di sant waa Kaolack yëpp vive la jeunesse de Kaolack